Euh, information people euh, ngeen ko doon xaar euh, egsi na sanu lan moo xew ci milieu people bi. Eh, waaw li xew ci milieu bi. peut-être que ñëpp xam nañ ko ñëpp xamuñ ko. Uh-huh. d'après démb bi ñu génnee si li nga xam ne mooy Saint-Valentin bi si mbëggeel laa doon wax en quelque sorte si artistes yi star yi. Uh-huh. tey nag damay ñëw si ki nga xam ne mooy Carlou di uh-huh. moom nag dañoo nekk di ko jiiñ que ne franc la. mu daal di si ñëw tontu de pour andi ay leeral yu am solo yoo xam ne ni loolu la wax nee na moom euh, musulman la et que taalibe euh, Serigne Xaban Mbàkke la. Mhm. donc euh, dafa gis ne du sax lu logique ñu koy traité de franc jullit piir la maam Cheikh Ibrahima Fall mooy idolam et que mhm. moom la bëgg ci biir xolam bu biir xolam tey Cheikh Rafal nga fay fekk mhm. donc du yoon ñu koy traité li nga xam ne mooy franc ba tey mu mu andiwaat yeneen lay rek ne moom d'ailleurs li ñu tuddee euh, mooy euh, moom li ñu koy woowee mooy artiste euh, le Baye Fall des des artistes donc du yoon moom nee na ñu ñu koy waxal loolu ndax ku ko gis rek déjà li ngay njëkk a gis ci moom style beeg et tout xam ne moom Baye Fall de par ni muy solo ses comportements ni muy waxee ba ba tey day feeñ si li nga xam ne mooy musique am boo ko déggee day da si woy Sëñ Touba da si woy Mame mhm. day wax day woy ci murid yi donc loolu daal la xamle si euh, Dakar Actu. c'est ce que j'allais mhm. di ñu naan que franc-maçon la que comme noo ko waxee image bu muy incarné déjà c'est un musulman typique ak euh, Baye Fall typique gisoon clip bu mu doon tourné mu nekk ci mbedd Saint-Louis di maajaal ba ñu bari doon wax que dafa dof donc kooku nga xamante ne dafa ancré bu baax ci ci euh, milieu euh, Baye Fall yi ba tax euh, tax nit ci léegi le mot man Baye Fall laa laa kaalu di gën contribuer ci li tax nit yi di ko di ko ndamoo donc mm. après quand on dit que franc la ça fait un peu bizarre aussi dafay incarner affaire Yaay Fall ñoo ko wax ak lan moo tax ñu wax ko. non loolu laa bëgg wax. parce que boo xoolee bu baax boo duggee YouTube ñu bind euh, sénégalais yoo xam ne dañ leen di jiñ franc-maçon moom da ciy bokk. Mhm. di dund gis da ciy bokk ak ñeneen ak ñeneen et cetera loolu tax man di ay leeral ay leeral ci ci loolu. mais bëgg naa wax tamit est que du du bu ko yàq der bi aussi parce que Sénégal tàmm nañu am album. Mhm. boo amee da ngay def euh, lu lu flash yi. wala mhm. loo xam ne am na couleur. est-ce que du couleur bu album bi ak asamaan si mu def. ak wala ah, en fait je pense que. si bi parce moo nit ñi di ci YouTube da dem ba da dof lu nekk nga ne c'est les Illuminati couleur bi ñoom ñoo koy def signe bi da dem ba léegi ah, il y a des gens parce que dañu naan fekkee tu es provocateur nga seetaan YouTube naa lii c'est des trucs euh, illuminati yow da koy def pour ñu wax ci yow pour nga am mais ko mhm. ñoom sax ku leen wax ne signe yooyu information te dañuy xoolal dañuy encombrer nit ñi ak vidéo yi ak signe naa la defal lii surtout WhatsApp dañuy envoyé yooyu maçonnique mais tamit nañ bàyyi di yàq nit ñi daal parce que ku nekk am nga ay doom am nga ay famille. Mm-hmm. surtout lu ci mel ni sax euh, euh, jiiñ nit ki. Mm-hmm. vraiment c'est na am ci loo xamante ne il faut nga teg preuve euh, balaa nga koy wax sax nag et boo amoon preuve yi sax. boo ko amoon ça te concerne pas ça concerne wu la quand même. Mm-hmm. et Carlou D d'après comme ni ko ñëpp waxee ñun loolu la ñu gis ci moom Baye Fall gi mu doon donc ñun boog loolu la ñu gis. mais gisuñu gisuñu leneen tax loolu ay wax la rek. Eh, en plus sax lu ñu bëri bu ñu bu ñu bëggee tey Carlou di de par euh, affaire bu Baye Fall yi mu incarné moo tax ñu gën mm-hmm. ko bëgg si ay fan sam mm-hmm. donc euh, waa Dakar Actu loolu la ñu xamal si moom damay jógee foofu daal di ñëw si ki nga xam ne tamit damay des toujours bu ñu waxee février wax mbëggeel wax euh, cofeel mm-hmm. ba tax na kii di jaaga ki ne Diouf yaayu Wally Seck moom si Saint-Valentin bi dafa daal di may ki nga xam ne mooy doomam Wally Seck benn bague en diamant pour wan ne di di di firndeel cofeelam si moom. Eh, Ah. waaw jaaga moo ko may waali jaaga moo ko may ah, waali cadeau si si mignon ah, dafa ne moom euh, Saint ak jabar copine mhm. ak doom ci lañu bokk frère ak sœur ci lañu bokk ay xarit donc mhm. looloo tax mu defal loolu doomam boobu di waali balaa oh c'est trop mignon c'est vrai que waali ak yaayam la ñoom complicité mhm. bon yaay moom lu mu jox doomam da koy xeeb <laughs> jaaga tudd ko ci Saint Valentin sax dafay normal parce que ñëpp Sénégal yëpp sëykat lañu ko lañu ko xamee donc voilà moom la ñu ko seedeel également def lii ci digganteem ak Wally Seck je pense que ñëpp nañu ñëpp xam nañu ko mu doon également yaay boo xamante ne ay doomam dañu koy gërëm tout le temps en tout cas wax ci ruxam boole ko pat donc kenn du ko dégg ci ak yenn rek boo xoolee ci suñu jour saint ñu yaakaar ne diggante copain ak copine rek ñoom ñoo war a jox joxante pourquoi ñu ne diggante jëkkër ak jabar rek ñoom ñoo war a joxante cadeau def naa entre frère et na mën nañu nañu ko def yaay ak doom comme ñi li ñu def nii lii rafet na trop rien à dire ci lii parce que euh, c'est tout beau mm-hmm. et pourquoi pas ñaari sœur pour ah, pourquoi pas ñaari frère jël benn symbole offrir ko sa sa sa famille kenn ci ñoom. Mm-hmm. et defe naa ne loolu aussi day bokk ci lii gën a dëgëral famille. dañ ko commencer par man ak yow. d'accord <laughs> mais man xam nga bëgguma. <laughs> ba tey dañuy li nga xam ne mooy info people euh, mm-hmm. damay jàll si ki nga xam ne mooy ex animatrice boobu set bi. di Amina Poté buñ ko tuddee nit ñi gën nañ koo gis. Euh, si si si télé yeeg médias yi moom Amina Poté nag ah, démb dafa xamle ne moom la ñu tabb ah, directrice Dakar TV international benn télé de la mhm. place mhm. mu xamle si wax ji ne que seen télé boobu ah, télé numérique la et que concurrence wuñ ak benn télé boo xam ne ni mu ngi woon Sénégal mhm. ñoom li ñu visé mooy international bi et que kii di borom télé bi di Noah Camara du nepp mënul jël xaalis bu ko ci télé ba pare mm-hmm. di tabb directrice koo xam ne xamu ko mm-hmm. nee na temps bi mu def euh, yëpp euh, te nit ñi gisuñ ko mm-hmm. mu ngi woon ci keppaaru kooku di Noah Camara pour mu former ko daal di ko euh, xamal li nga xam ne loolu la directrice war a def bu yore télé ba tey Amina Poté di xamle que ne te tàggatoom ak waa TFM jàmm ak salaam ndong moo ko lal musul am ak ñoom problème et que mënoon na génn foofu di yàq deru Youssou Ndour ak famem mais du ko ci pour wut buzz mais du ko ci fekk ndax ay liens yu rafetal la ñu sekk et que toujours ñoom euh, diggante ma gisuñu ak ay frère am respect lañ ko joxoon donc du fa génn di leen euh, di leen waxal lu ñaaw pour am mm. buzz genre la information bi daal mooy que léegi moom mooy directrice à Dakar TV international mm. et que ñu ngi koy féliciter ci loolu. di ko mm-hmm. féliciter bu baax ko waxee ki ko xool ba tànn ko tabb ko loolu xool na ay qualité aussi ba teg ko foofu mu ko war a teg. Mm-hmm. donc duñ koy wax juste rek bonne chance. bonne chance euh, amiin et ci yóotu na ko am. Mm-hmm. enfin man je suis contente. mooy kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci Youssou Ndour ak TFM parce que bu ko neexoon gis nañ fi ñoo xamante ne bu ñu génnee ci télé li ñu naan euh, lekkoo ci ndab li lekkatoo ci danga ci xëpp suuf donc euh, le fait que mu mu euh, rafetlu am kàddu yi rafet yoo xamante am kàddu kàddu yi rafet yoo xamante ne jël na ko teg ci waa TFM ak Youssou Ndour man na mm-hmm. trouvé ça bien mm-hmm. rafet na fi fierté la su ñun en fait bu ñu nañ ko dara. Mhm. comme euh, semaine passée nu ñu tabee suñu euh, ministre de la santé meilleur ministre de la santé. Mhm. fierté lay doon suñu si jigéen euh, nekk ay battante pour ëllëg ñu mel. bien sûr vraiment jigéen moom dañ koy gën a promouvoir rek. Mhm. ñu gën a kontaan. pourquoi pas. foofu laay jugee ba tey euh, dem fële sa Guinée ñoom nag dañ doon amal seen élection Miss. Mm-hmm. Euh, ginnaaw loolu nag euh, ñu ba ñu tànn ki nga xam ne moo gagné dafa andi woon mu ngi noonu élection Miss la woon Guinée. ban Guinée la ni. Guinée équatoriale wala si cérémonie bi nag ki nga xam ne mooy ministre de la culture mi nga fa woon ak kii di ministre premier ministre bi après ginnaaw bi ñu falee ki nga xam ne moo ko gagné ñoom nag dañoo revenir si si fee yi. nekk euh, tenue yi nga xam ne moom la Miss yi soloon ñoom nanguwuñ ko ànduñu si ndax nag xam ngeen deux pièces ni taxaw ci digg nit ñi di défilé vraiment ministre bi ñoom ñaawlu nañ loolu ba tax ñu tere fa li nga xam ne mooy élection Miss euh, mhm. mais ban Guinée la sax sanu non Guinée la de Guinée la de. dafa yaa plusieurs Guinée ban Guinée la. ban la ci yam ci Guinée bi yam ci Guinée yam ci Guinée ah d'accord ok. <laughs> parce que xalaatu mu nekk ñaari Guinée yi nekk. ah égal bi waa fële doon ko waaw. waxoon nañ ma nag may toog ba mu sës mais gis naa tey daal. Oh, bu ko ay tubaab defoon du choqué mais c'est vrai que euh, Guinée ak euh, Sénégal ñoo xaw a yam euh, seen ay traditions. waaw c'est ça c'est des pays islamiques donc boo gisee xeetu image yi dafay choqué et je comprends mm-hmm. lu tax ñu nekk que nanguwuñu ko parce que bu doon fii fii Sénégal également. vraiment dina bari ñoo xamante euh, xalaatuñu ko sax looloo tax euh, ministre de la culture boobu di Siaka Bari mu daal di rompre contrat bi nga xam ne moom la amoon ak comité d' organisation euh, bi nga xam ne ñoo yor ak wàllu défilé de Miss bi jusqu'à nouvel ordre. Ah, parce que lii moom doy na waar. c'est c'est choquant euh, jigéen ñi pour truc vraiment c'est. ku ñuul ci yaram surtout jigéen xaw ma lan moo leen ci poussé xaw bëgg des fois aussi jigéen ñi bëgg réussir wala bëgg tekki tamit mën na day tax ñu def lii alors que. ci organisation bi la en fait. parce que mhm. même fii Sénégal bu fekkoon organisation bi dañ nekk xeetu tenue yi la ñu bëgg am na jigéen ñu koy nangu. ñu mhm. donc organisation bi ñoom ñoo. moo tax euh, ministre euh, de la culture bu dellusiwaat que ne. bu ñuy defaat beneen comité day doon si loo xam ne miss yi ëllëg bu ñuy présenté wu dañuy sol tenue traditionnelle mhm. au moins euh, jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi am référence bu baax si si li ñuy gis jaay seen culture mais ça moom ça n'a moomuñu ko moomuñu ko Pape de l'Ouest peut mais doy mooy li ma waxoon semaine passée ba tey rek parce que euh, kooku di euh, ministre de l' information de Zambie mhm. moom ñu ngi ko tabb ministre or euh, ex prostituée la woon mhm. moo tax lépp looy def sa àdduna war nga ko xoolaat ndax àdduna dafa àdduna dafa gudd tànk et que demain kenn xamul lan ngay doon donc lépp looy def rek na rafet mhm. mu leen ci commentaire. si euh, <laughs> mais beaucoup de gens mais tamit pour man loolu modèle la pour ñi nga xam ne dañoo nekk ci mauvais chemin pour ñu ñëwaat. Mm-hmm. parce que pas aussi da nga def da nga raté sa da am loo def ci sa page que mm-hmm. tout temps dañ la moins moom sax war na jox chance ñi nga xam ñu ngi ci pour ñu xam ne su ma góorgóorloo def samay étude mun naa ci génn te ci kooruñu ko woon au contraire dañ ko waroon encouragé ku nekk am nga passé boo xam ne bëgg nga am ko dina dina nekk modèle pour que nga xam nan ngay def et puis tout le monde a droit à une seconde chance il faut savoir aussi yàlla ak rek ak moom moo xamoon cause bi tax mu koy def mhm. aussi mhm. des fois dafa am ñu koy def pour manque de moyens wala yenn yi c'est clair c'est vrai euh, foofu lay jàllee nag daal di tëj ak kii nga xam ne mooy humoriste de la Walf TV kooku di Issa Ndiogou Mbengue moom na dafa def ay classes yi chanteuses yi nga xam ne ñooy woy wa woyu mbëggeel doon woyu tamit si Saint-Valentin bi mu daal di leen wax ne kooku di Viviane Ndour Ngone Ndiaye Géwél Adji Ouza Mirma ak Fatou Géwél que ñoom waruñu woy woyu mbëggeel wala ñu woy si euh, Saint-Valentin fête bi nga xam ne moo passé déebul ndax nag ñoom nekkuñ ci lu dëgër ñii sëy dañoo sëyoon tas du samay kàddoo saa ñu ko moo ko wax ñi dañoo sëyoon tas ñii sëyaguñu donc buñ solal askan wi ak ay wéyu mbëggeel bu samay kàddu ba tey Sadio moo ko wax ba tey mu dolli si ne moom que ñooñu di wax euh, Saint-Valentin bi mbëggeel moo jiitu ñoom. avant Saint-Valentin ñu koy créé nit ñi ñu ngi doon bëggante. donc Saint-Valentin moom tegu ko fenn quoi ay pour moom des paroles dans. ay Sadio nga bàyyi nit ñi fête Saint-Valentin ah ku mu neex a fête sa Saint-Valentin. man koy proposé mooy Sadio bi est-ce que doo ci xool ki nga xam ne moom nga gën a sentir soit Queen Biz wala Viviane nga jël rek. nga def ko ñaareel. voilà très bonne idée. loolu daal laa la proposé. waaw ngir yàlla ba ma tontu nag. di nga dégg nag di nga de seytaane <laughs> man la dama ci commentaire Viviane mere ni Ngoda Ndiaye géwél ni aji usa ni mbir maa du samay kàddu saa ñëw bi nee na non duñu la nekk si sëy bu dëgër sax wax si nit ñi dinañ ko noonu voilà wax na dëgg mm-hmm. mais comme nekku leen ci sëy bu daga dëgër et ñii dañuy sëy tas mm-hmm. donc euh, ngeen dimbale ñu ko <laughs> samay kàddu <laughs> loolu waa Sénégal ñoo ko xam la mere